بالقلم أرسله الله إلى كل الورى مرتلا ذكرا أليم ينزيلا هدى لزيد تعمدني أكرم بذلك الكتاب فيه القيط واب والجواب من ربنا ذي القدام هو الشفاء من كل ذا لمن عليه اعتمد ومن آله wax di leen siyaare di leen dalal fii ci bërëb bu tedd bii di Bustaanu Arifin ci pencum Sëriñ Afiya mi nga xam ne moo fi tëdd tey jii ñu ko fi ko tey jii ñaar ko fan ak juróom-benn ci weeru Ramadan dëppook le 28 avril 2022 ñoo ngi ziare mbokk yi fu ñuy mën a seetaane di leen dalal ak jàmm tey nag ñuy fàttaliku góor yàlla goo xam ne ñu tug yàlla la woon murit saadiq la woon. ko amoon ngërëmul sëriñ Tuubaa la tëdd fii mu bokkoon ñi nga xam ne ñooy njëkk topp sëñ bi bi mu tàmbalee wooteem bi rek te waajuram sëñ bu soobee mi nga xam ne mook soxna jaara bu so ak soxna mati bu ñoom ñoo bokk nday ak kon muy nijaay ci sëriñ bi bi nga xam ne sëñ bi tàmbal na woote bi rek la jël ak njabootam gépp jëbbal leen ko ci biir njabootam ko sëriñ Afiya ci la bokk mu jëbal ko sëñ Tuubaa mu tarbiyee ko yar ko sampal ko kër ba mu am ngërëmam fii mu nekkoon tamit moo ko fi bàyyi woon moo ko fi yabaloon mu toog fi di fi yar ak njabootam di fi jàngale alxuraan ak yaru yaru diine ak jàng xasida yàlla dogal nag fi la nekk ba dogal bi fekk ko fi 1930 mu wuy ji boromam ñu denc ko fi bi ñu demee ba jamonoy 1950 Cheikh Mahamadou Fadal bi mu nekkee xalifa nga xam ne Cheikh Mahamadou Fadal sëñ Afia nijaay la ci moom ndaxte sëñ Afia ak soxna Awa Bousso ak sëñ Ibrahima Bousso ñoo bokk nday ak baay soxna Mati Ñang mooy seen waajur ak sëriñ bu soobee moo ko fi joxe ndigal ngir ñu tàmbali di ko fàttaliku ndigal nag bi mu koy joxe moo ne nañ koy def ci koor gi te nañu koy def ci guddik ñaar fukk ak juróom-ñaar ngir guddik ñaar fukk ak juróom-ñaar dañ ci dàkkaale laylatul xadar mu ne kon dee nañ ko def bis boobu mu mel ne benn sànni boo xam ne da nga ciy jam ñaari picc da ki am ndigalu Cheikh Mouhamadou Fadel fàttali ko waale ci góor yàlla te yonte bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ci xaddis bi ne fu ñu fàttalikoo nit ñu baax ñi rek yërmande dafay wàcc waaye tamit danga ci dàkkaale am laylatul xadr ngir borom xam-xam yu bare bëri ak nitu yàlla yu bare bëri wax nañ ne dat bi nga xam ne ëpp nañ ci yaakaar ci laylatul xadr mu ngi nekk guddik ñaar fukk ak juróom-ñaar kon Cheikh Mamadou Fadal moom moo joxe woon digal li màggal giñ fi njëkk a def moo ko njëkk a def yabal fa jàngkat bi ko jàng muy sëñ Saliou Thiam daan digal ko bi noppee ñu fanaane ko ba ñu jàng fi alxuraan ak xasida mu wax boobu ki nga xam ne moo fi nekkaloon sëñ Afia mi sëñ Modou Bousso Fati Kanni ne ko nañ koy defee nii ci noonu nag yoon woowu la mbokk yi kon na woon di ko def ba yàlla dogal bi nga xam ne 2003 jot na sëñ Abdou Moutalib mi nga xam ne moo fi nekkoon sëñ Afia yàlla dogal mu jóge fi sëriñ Thierno ñëw wuutu ko fi mi nga xam ne moom ngeen ñëw ci këram tey jii nii wuutu ko ci bërëbu ñu bopp njabootu sëñ Afia noonu lay wéyalee màggal ga di ko gën a taxawu yàlla dogal nag ci loxoom màggal gi gën ci am dimension bu gën a kawe ba nga xam ne bokk na ci date yi nga xam ne ci dëkk bi bu màggal gi jotee ñëpp koy bàyyi xel ñëpp danañ xam ne tamit am na lu xew ngir loolu li ko may mooy yàlla dogal na Sëñ Cerno ku mënoon a maslaa la ko moo ak ñëpp jàmm la daan dem ci kër yëpp daana tax bu màggal gi jotee masaana jot fu fu nekk la waaye daan jógee surtout rawan na ci njabootu kër Seexul Xadim gi ak njabootu mbokk yi Seexul Xadim yi waa sëñ Mor Jaara waa kër sëñ Maam Mor Jaara sëñ sëñ Maam Cerno waa kër sëñ Maam Seex Anta ak mbooleem doom yi wa bàyyi yi nga xam ne sëñ Tuubaa am na ko noonu la tamit lay demee ci seex yi waa kër Seex Ibrahima Fall waa kër uh, Seex Isaa Jenn ba seex yëpp rek ak mbokk mboolem mbokki bu soobe bu soobe tamit noonu lañ fi daan ñëwee fees fi dal njabootu sëriñ sax Buso njabootu sëriñ Busoobe ay doomam sëñ Mbàkke waa kër sëñ Mbàkke Buso waa kër sëñ Seexu waa kër sëñ Mbàkke Kanni waa kër sëñ Ibrahima Buso ñi nga xam ne ñun ñoo bokk même bis bi nga xam ne ñoom bis bu set dañuy ñëw <coughs> ko ba seen alal ak seen yëpp lañ ci boole. kon dimension bi xam ne egg na fa tey sëñ Thierno yàlla dogal mu yóbbu ko fa ngir ak maslaam bu mu amoon ak am di jàmm gi mu amoon ak ñëpp moo tax màggal gi toll fi mu toll tey. tey jii nag ngeen ñëw ci këram seet si ko seet si ak njabootam sëriñ Afia mi ñi ngi ñaan suñ borom gën ko fee yàggal lool te wéral ko yàggal fi sëriñ allah nga xam tamit moo fi nekkal sëriñ Afia ak mboolem njabootu sëriñ Afia bépp ak njabootu sëriñ Thierno gépp asalaamaaleykum wa rahmatullah kii seetaan ci seen si bii di 24 actu ñu ngi leen di nuyu baax ñu gu mag gi nga ne moom ñu defal sunu maam Serigne Afia Bousso ak juróom-ñett mu dëppoo ak bu mag di Laylatul Qadr di boo xam li ci lamboo dafa bëri Serigne Abdou Samad moom bi wax nañu ne bis bii ci la yoonu murid taxawoon ñu ciy màggal Serigne Afia Bousso ndigal li bàyyi woon si Amadou Fadal ñu ñëw fii tey ci kër Serigne Thierno Bousso di ko fi dundal Serigne Thierno nag ku nekk xam na doomi Serigne Afia Bousso la waaye dimension bi mu yóbbu màggal gi diggante bi fi magam sëñ Abdul Mutalib nekkee ba nu fi jógee bàyyi ko ba àdduna bépp xam ko mu jógee fi bàyyi ko njaboot gi sët yi ñu koy ñu koy bàyyi naka noonu la ci doomam yi di di taxaw taxawaay bu rafet ànd ci ak sëñ Afia Bousso ñu ngi fii ci kër Sëriñ Fadilu Bousso di ko fi dundal ñu ànd moom taxaw su ko defee mbokki taalibe mbokki jullit yëpp li fi nekk ci ay xéwal ak i bernde yëpp ak i ñaan bi weer wi taroo ba léegi ni ko Sëriñ Ceerno daan digale ci këram gi jàng nañ fi ñaar fukki kaamil ak juróom bis set jàng nañ ab kaamil bi ñu xëyee ba léegi ñu ngi jàng alxuraan di jàng ay xasida def ay salaat nabi ngi def ko addee sëriñ Afi Bousso ak addee kon dañuy jox sëriñ Fadil Bousso moom mi nga xam ne mooy doom la ci sëriñ Thierno Bousso ci borom xam-xam bu mag ca bokk ci njaboot gi mu indi fi ay ay ay kàddu yu am solo ñoo ngi leen di nuyu nag fii ci dëkk bu sell bii di Touba ci quartier bii ñuy wax Bustaanul Arifin di quartier boo xamante ni bu njëkk ci daarul mannaan la bokkoon waaye Cheikh Saliou Mbacké moom xaadimu rasul radiyallahu anhu moo ko duppee bustaanul aarifin di pencam Serigne Afia Bousso moom maam sëriñ Bousso be ñu nekk nag ci weer wu tedd di weeru Ramadan tolloog bis yu tedd muy fukk yu mujj yi ci weeru koor tolloog guddi gii ñu dëgmal itam muy guddi laylatul xadr di ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru koor ñu bari ci jullit yi itam di ko màggal ngir di ci dàkk laylatul xadr loola yiw wa yàlla nañu ko yàlla def ñu taseeg moom <clears throat> waaye itam mu amaat xew-xew bu rëy bu ci lëkkaloo muy loo xamante ndigal la lu bàyyeekoo ci seex Muhammadul Fadal moom xaadimul rasul radiyallahu anhu moom mi nga xamante ni moo sàkkaloon nijaayam ji di taalibeem itam di Cheikh Afia Bousso bis boo xamante ni bu dikkee njaboot gépp àndandoo di ko ci fàttaliku di ci jàng alquranul karim di ci jàng xasida di ci def ay berle di ci def salaatul ala nabi di ci def dikkar ngir ñaan yàlla mu nangu mboolem jaamu yàlla yooyu te bindal ci Cheikh Afia Bousso ak njabootam Euh, ak euh, xaadimu rasul radiyallaahu anhu ak Cheikh Mouhamadou Fadal mi joxe woon digal lii ak mboolem taalibe ak jullit yi sunu borom bindal leen ci tuyaaba ndax sunu borom du jeexal dara ñu nekk fii nag tey ci euh, pàcc bu yaatu boo xamante ni ci toolu bu mag bi walla aw làcc woo xamante ni moom lañ ci tobbiloon Serigne Thierno Bousso radiyallaahu anhu wa xafara lahu wa rahima nekk fii tam ci kër. sëriñ euh, Alhaji Bousso moom sëriñ Thierno ànd ak sëriñ Afia Bousso mi nga xam ne moo nekk ci bopp kër sëriñ ak njaboot gépp na ko seex euh, sëriñ Thierno daan defee ñu koy defee noona ci jàng alxuraan ci dundal ko ci jàng alxuraan ak jàng xasida ak def ay bernde euh, mbokk yi yëpp itam teew fi itam muy ak njabootam gu góor ak jigéen ci njiital sëriñ Afia Bousso ak sët yi ak taalibe yi ngir dundal fi bis bi fii ci anam gii xam nga ku gis nii mu doxee tey xam ne def nañ ci seen kéemtulaay kattan ngir dara bañ fee manqué lépp loo xamante ni seen wayjur wa ak seen maam ja doon na ko def ci ay bernde ak luy bégloo wayjuram bu tedd ba sëriñ bu so loolu njaboot gi ci njiital sëriñ Afia ñu ngi ciy dox seen kéemtulaay kattan di ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa taala ñu yàgg koo taxawe yàgg koo def itam te lépp luñ fi def ci ak jaam yàlla sunu borom nangul ñu ko te bind ca maam yooyee ak ki ko digle woon muy Cheikh Mamadou Fadal ak Serigne Afia Bousso ma taxoon mu digle ko ak njabootam gi ko yàgg doxal ba mu yegg si fii ci Serigne Alhaaji Bousso Ndumbe sunu borom bindal leen ci tuyaaba ju dul jeex wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin قل يا آمين بإذني وبعالمين جبارا أن هو ما تدبرا فيه عصى رب الورى أضحكة للغني وهو الذي من ثبت فيه ولم يلتفت دع من عند الشيخ ci att bu sell bi di attub sëriñ Afiya Buso eh, te fii ñu toog di wax nekk ci kër kenn ci ay njabootam muy sëriñ Abdou Buso te ki nekk ci bopp kër gi di ab xalifaam di sëriñ Alxaaji Buso Malaaka moom sëñ Saaliw ñu ngi ñaan yàlla na yàlla yàggal ko fi te ko sëriñ Afiya kenn la ci njabooti sëriñ Tuubaa yi su ma waxee loolu mooy ci bokki sëriñ Tuubaa yi waaye ci taalibe Serigne Touba yi nga xam ne ñoo ko muriti woon àndoon ak moom ca bi yoon wi taxawagut ak bi yoon wi taxawee kooku mooy Serigne Afia Bousso su ma ko bëggee xamle ci ak bokkam ak sëriñ bi Serigne Bousso bi Bousso mi nga xam ni mooy way juru Serigne Afia mook soxna jaaratullahi Bousso way juru Xaadimu Rasul ñoo bokk ndey ak baay sëriñ Bousso bi nekkoon magam Euh, sëriñ bu soobi nag nekkoon koo xam ni dafa teel yàlla da ko teel a yee ci jarbaatam boobu di di sëriñ Touba xamal ko mbiram xamal ko lu bari ci mbiram mu teel a jël njabootam gépp jébbal leen sëriñ Touba ginnaaw ba mu jëbbalee boppam sëriñ Touba ci nekkam sëriñaa fii mi nag nekkoon koo xam ne ku ci ràññeeku woon la ndax da koo joxee sëriñ bi ci ak ndawam nga xam ni lépp sëriñ bi mook ko defal lépp sëriñ bi moo ko defal Euh, nekkoon koo xam ne it xoolul woon ak bokk gu mu bokkoon ak Serigne Touba waaye lam xooloon ci Serigne Touba mooy la ne fa moom te way juróom sëriñ bu soobee bëggaloon ko ko loolu la àndee woon ak Serigne Touba waaye àndul woon ak moom ci ak bokk rek ba tax na nanguloon na ko loo xam ne néewuma benn taalibe nangulu ko ko waaye nag moom bokk na ci njëkk ñi ko ko njëkk a nangul ñi ko ko defal loolu murid yi wala ñi xam ñi ci bëri xam nañ loolu kon ci tënk bu gàtt rek kooku mooy sëriñ Afia Bousso soxna Awa Bousso mi nga xam ne mooy wajuru sëriñ Fallou Bousso sëriñ Fallou Mbacké moom xadimu rasul xam ngeen ni moog sëriñ Afia Bousso bokk ndey ak baay soxna Awa sëriñ Afia ñoo bokk ndey ak baay soxna Awa Bousso nekk wajuru sëriñ Fallou sëriñ Fallou nekk ab jarbaat ci sëriñ Afia Bousso nekkoon koo xam ni dafa bëggoon lool nijaayam jooju di sëriñ Afia te daan diisoog moom daan jëflanteeg moom ci ay jëflante yu am solo yu bëree bari ba tax bis bi ñuy ñaanal sëriñ Afia nga xam ni moom sëriñ Fallou moo ko tànn moo ko tànn muy bis bi nga xamante ni gën nañoo am yaakaar ni ku ko màggal daje nga ak laylatul xadri muy guddik fukk ak juróom-ñaar ci weeru koor bisub fukk ak juróom-benn jàpp guddi fukk ak juróom-ñaar ci ramadan képp koo xam ne mi ngi dàkk rama euh, laylatul xadri soo ko dàkkee ci bis boobu mën nañu wax ni juumuloo kon sëriñ Fallu moo tànnal sëriñ Afiya bis bii ci ramadan njëkk ko defal boppam indi fi ay bernde ci barab bii di bu saarul arifina nekk fii ci daarul manaan daarul ma naan sëriñ Afia sëñ Tuubaa moo ko joxoon ndigalu dëkk fii moo mu sa dëkk faneen fii la fii la ma sa dëkk ci ndigalu sëriñ Tuubaa ba ni yàlla dogalee mu wàcc fi mu wàccee fi ab liggéey ñu denc ko fi kon ndigalu sëñ Tuubaa loolee moo ko fi indi moo ko fi bàyyi ba tey jii sëriñ Fall wax nañ ne bu ma saa jógee Tuubaa di dem dem Mbàkke wala mu jógee Mbàkke di ñëw bu tollee barab bi daana joxañ naan daa mi ngi mi ngi ne mukk fii rek waaye bisi dina ñëw dana ne mël ba ñëpp gis ko kon daf mel ni loolu euh, jamono mi ngi koy wane wala suñ borom dogal na ñu bari xam nañ ko euh, léegi nag sëriñ Fallou bis bii bi mu ñëwee moo ko tànnal boppam yab la fi yabal fi ay jàngkat ñoo xam ne dañ jàng nañu alxuraan fanaa defee jàng xasida ba bët set nga moom moo ko defal boppam indi fi ay berne yu bari jamono yooyu sëriñ Modou Bousso moo mi xam ne moo nekkoon taawub sëriñ Afia moo fi ne bi mu ko defalee boppam ba noppi moom sëriñ Fallou la jox sëriñ Modou ak njaboot gi ne leen mi ngi noonu saa yu ne bi bis bi ñëwatee na ngeen ko ci fàttaliku ñaanal ko ci. sëriñ Abdoulahi Bousso nga xam ne mooy boroom at bi ñu toog di doomi sëriñ Afia Bousso man na maa wax ni ci ay doomi sëriñ Afia Bousso yu góor yu ma xam moom moo doon juróomeelu ay doomam ci ñi ci ci ak ci ñi ci mag waaw. Hmm? ndaa déedéet mu xaw na fee teel a jógee waaye nag dundam yàlla moo ko barkeel suñ la nee nettali dundam da yaakaar ne ko dund téeméeri at la sëriñ Modou moo njëkk nekk xalifa sëriñ Afia Bousso Baye sëñ Bousso Ilimaan moo ci topp amoon na doom ju ñuy wax sëriñ Cheikh ku baax la woon moom jotu fee nekk xalifa sëñ Afia amoon na ku ñuy wax sëriñ Muxtaar sëriñ Muxtaar mooy way juru Cheikh mi ma wax léegi mooy wayjuru xalifa bii di sëriñ bu Bousso Ndumbe sëriñ Muxtaar Bousso mooy wayjuru sëriñ bu Bousso imaam euh, sëriñ Abdou moo ci topp ci ak mageel ginaa ginnaaw sëriñ Abdou nag la sëriñ Abdou Moutalib door a ñëw ci ak Maguel bàcceer na Bousso mi fi mujjoon ci ay doomam yal na yàlla yokk seeni leer ñoom ñëpp te gërëm leen noonu la demee. Euh, kon ñu xam ni sëriñ Abdou mooy juróomeelu doomu sëriñ sëriñ Afia ci ñu ñu xam ci góor ci ni ñu toppantee ci ci ak ak Maguel euh, ci biir loolu nag sëriñ Alxaaji Bousso mi nga xam ni. Euh, mooy ab taawam yi ñaan yàlla mu yàggal ko fi mu yàgg fi lool te wér te wér moom mooy ki nga xam ne mooy ab xalifaam nekk koo xam ne ku nangoo jaboote la uuf njaboot gi macha allah te taxaw ci ñoom taxawaay bu rafet lool ba ci suñu bis bi ñu ñu toog tey eh, lépp lu ñuy defit ci ndigalam rek lañ ko def mooy borom kër gi ndigalam moo fiy dox lu mu wax loolu la ñuy def moo yilif kër gii mooy kër sëñ Thierno Bousso sëñ Fallou Bousso sëtu sëñ Afia la sëtu sëñ Afia la baayam di sëriñ Cheikh moom la sëñ Afia jur sëriñ Afia fi doom ci kaw suuf ay sëtam ñoo fi nekk ay yàlla dogal na wujj nañ fekki nañ ko yàlla na yàlla yërëm leen te jéggal leen sëriñ Alxaaji Bousso Ndumbe mi mooy sëtam bi ko njëkk bi bi njëkk nekk xalifa sëriñ Afia Bousso yàlla yàggal ko loolu te wéral ko jóge ci ay gox ak ay barab yu wute wax dëgg yàlla nekk ay bokk nekk ay xarit nekk ay kóllëre kenn ku ci nekk ñëw ñëwee yéene itam bokk si ak ñun bis bi nga xam ne amuñu lu dul moom euh, ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp suñu borom mu faj seeni aaju faj sunu aaju kenn ku ci nekk lu nekkoon yitteem suñu borom fajal ko mu yàgg koo teewee lool di ñaan suñu sëriñ ñun ñëpp di suñu kilifa di sëriñ Mountakha Mbacké suñu borom yàggal ko fi te wéral ko kilifa la goo xam ne kilifa gu gu am solo la soo xam ne bàyyi na xel kër gi lool te sagoo ko ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di ñaanal njabootu sëriñ Touba gépp di ñaanal mboolem taalibe yëpp ak ak cheikh yëpp bàyyiwuñ kenn nuyu mbokk yi ñu seetaan yëpp te di leen ndokkeel di leen nuyoo fii ci kër bu Afia Boustanoul Harifina pencum Serigne Afia waaye ci kër Serigne na buso nga xam ne e, doom la ci Serigne Afia Bousso bokk ci doom yi nga xam ne ay caatam lañ maanaam ci góor ñi e, nekkoon fi jóge fii le 23 mars 2018. Euh, sëriñ Afia mi ñu fàttaliku nag doomi sëriñ bu bi la sëriñ bu bi ak soxna Jaara ñoo bokk lépp euh, doonoon koo xam ne taalibeb sëriñ Touba la boo xam ne euh, waajuram a ngi ko jëbbaloon sëriñ bi ci bi mu sancee Mbàkke Bawol atum 1884 wala 85 mi ngi bokkoon ci taalibe yi doon liggéeyal sëriñ bi ci sancub Daaru Salaam di liggéey ak jàng ak sancub Touba ànd ak moom dem Mbàkke baari ba sëriñ bi mu dem ci géej gi ci ñim bàyyi woon moom na la bokk doonoon koo xam ne murit saadeex la sëriñ Touba seereel ko lu bëree bëri ci ak nangoom ak pasteefam ba tax na bett na ko ay yoon ne ko ndax ma loo bëgg ma defal la ko mu ne ko xanaa bokk ci góor yàlla yi bu ëllëgee sëriñ bi seereel na ko pasteefam lu yàgg mu doonoon nit ko am diine ku fonk xam-xam koo xam ne dafa yar ak njabootam ci xam-xam ak jikko yu rafet ak jàng ak jàngale ba loolu résultat bi nga xam ne def na ko mooy fii ci Touba Euh, mënoo wàññi benn daara ñaar bu gën a mën a def résultat moo xam ci alxuraan la moo xam ci xam-xam te doo tudd ak njabootu Sëriñ Afiya euh, niki noonu ci wàllu imama gi te loolu jàpp naa ne askanu bu soobee sëriñ bi wet googu la leen doon liggéeyloo euh, sëriñ noo nag di kenn ci doomi Sëriñ yi di rakk ci sëriñ Abdou Astawalo soxna Astawalo Ñang di seen waajur kon Euh, fii maanaam mën nañoo wax ne pàcc la ci màggal gi pàcc la ci fi ñu fàttalikoo Sëriñ Afe muy njabootuk Sëriñ Cerno euh, Sëriñ Cerno nag doonoon koo xam ne moom it euh, penc mi di Bustaanul Aarifiin xam na ko bu baax a baax ndax bari na liggéey yoo xam ne moo ko fi def yenn yi mu digal ak njabootam ñu def ko moo xam yeesal jumaa ji la moom loolu jamono yi bàyyi sëriñ bu sa ilimaan nekkee xalifab sëriñ ya la tàmbali woon liggéey boobu sant na ko ay yoon mu yeesal barabu sëriñ Afia yeesal fii jumaa ji fii di kër sëriñ Afia si résidence sëriñ Afia tey ay këram la woon moo ko jël joxe ko addiyee ne nañ ko def kër sëriñ Afia moom si Cerno mu barabu sëriñ bi moo tax eh, bi mu fi bàyyi ko ko def fii ci ci sëriñ mu nekk fi fii barab la boo xam ne sëriñ Tuubaa moo waxoon ne seytaane xamu ko Euh, demal bu foofa jàng di fa jàng di jàngale ba sama jumaa ji àgg nga jiital ma ko loolu moo ko waxoon sëriñ kon euh, suñ ko dee fàttali ko war nañu bàyyi xel bu baax a baax doomam jooju ndax ku ko liggéeyal la euh, ku fonkoon mbokk gi la te amuk taalib bi te jaxasoog ñëpp yàlla dogal na it nekk na fi ba doon xalifab sëriñ bu soobee ba mu fiy jógee moo doon moo doonoon kii yilif askanu bu soobee wépp doonoon xalifa sëriñ Afia euh, magal gi wax dëgg bokk na ci ñi nga xam ne yóbbu nañ ko ci dimension bu kawe ngir ak jaxasoom ak bokk yi waaye njabootu sëriñ yi gépp it defoon ko kilifa defoon ko waajur topp ci ginnaawam foofu leen jëmee ñu jëm fa te dawuñ nangu mu mu mu mu fekk leen ci lenn loo xam ne lu ñuy xebet la kon ñu ngi koy fàttaliku bu baax a baax di ko ñaanal di sant it bokk yi nga xam ne teew nañ fi njaboot gi yëpp nag moo xam njabootu sëriñ Afia gépp lañ koy tàmbalee jiital ci xalifa bi sëriñ Alhaji Ndumbe kilifa yi. di ñaanal it suñu kilifa yi bopp yi nga xam ne ñooy suñu kilifa di sëriñ Abdou Asta di sëriñ màggat Magat nga xam ne moo fi nekkal sunu baay Abdou. sëriñ Afia bu soo Thierno bi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Thierno ñu ngi sant bokk yëpp di sant taalibe yi aju ci kër gi yëpp ci taxawaay bi. ak ñi nga xam ne ñoo yoroon organisation bi ak cordination bi di ñoom sëñ Mourtala Bousso Thierno ak sëti sëriñ Afia yi sëti sëriñ Thierno yu góor yi sëriñ Thierno Bousso Afia ak sëti sëriñ Thierno yu jigéen ñi ak mboolem njaboot gi rek ñu ngi leen di sant ci taxawaay bi di leen sant yéen ñi yéen itam ci teewaay bi ndax su ngeen teewee fii jaadu na euh, bokk jullit yi seetaan xam barab bi ñu nekk ban la barab bu ñu nangoo ñaan a ngi nii barab boo xam ne ku am ngërëmul Sëriñ Tuubaa mi ngi fi. barab boo xam ne képp ku yëngu ci xasida loo ci jàng faw wàllam ñëw ndax moo ko njëkk a yëkkatil sëriñ bi képp kuy jariñu ci xasida it wàllam dana ñëw ndax bëri na xasida yu ñu jëlee ci sëriñ bi yoo xam ne euh, source bi ci moom la jóge ngir yitte jum ko joxoon kon yàlla ñu ko yàlla fayal te taas ñu ci barkeem te di ñu saxal faw ci li nga xam ne moom la bëgg asalaamaaleykum wa rahmatullahi